and amul problème <laughs> yeewu jangal na ma lu beuri xex biñ ma xex ties tax na ma gëna xam ma gëna taxaw gëna ñëmé gëna am fit gëna mëna jakarlo ak ñom mais yeewu du débat le débat c'est man ban projet lay proposer au Sénégalais parce que yeewu du sama interlocuteur Idrissa Seck du sama interlocuteur c'est le Sénégal qui est mon interlocuteur le projet bi nga xamante am nañ ko yéene bi nga xamné am nañ ko ñuy wax ak askan boobu ndax yeewu boobu dafa waxoon day ànd local day ànd législatif mais jàpp naa ni il faut un front boo xamante ni war na mën a large ñi xeex ba élection yi libre transparente xale yi responsabilité aussi Babacar déjà yaa ngi wax les gelwaar des valeurs yoo xam ne da ngeen koy incarner ci li nga xamante ne moom mooy sa parti parti socialiste ba ni nga demee coalition Idrissa Seck ba aujourd'hui Yewwi Askan Wi pourquoi ne pas prendre ses responsabilités djogé fa wala euh, li li ñenn ñi japp né beaucoup aujourd'hui dañuy surfer ci buzz wu Yewwi bëgg ci continuer ngoy ci non parce que li ñu am mo leen ko may mo la bëgg dal man duma kuy wut buzz <laughs> ci politique xaw leeg ngelawu Yewwi Euh damay assumer ay différents yu ma am ak Yewwi ñime ko bu baax a baax dans la courtoisie duma leen saaga duma leen xas te lépp bépp leader boo xamante ne am nga jafe-jafe ci politique di nga ma gis ci sa wet parce que jàpp naa ni yeewi kenn moomu ko du projet kenn dama cee def sama ñaq def ci sama cotisation ñeneen def ci seen i ñaq ñeneen ñi def ci seen i cotisation mu war a nekk un projet démocratique ñu war ko protéger ñu war a ko préserver donc ça n'a rien à voir mais les donc. mais différent bi nangu nga investiture investiture députation. c'est plus profond que ça D'ailleurs, il y journaliste bu journaliste qui bu xam visibilité leader dernières années évolution politique au Sénégal xam nga rôle bi ci FDS les Guelwaars joué depuis dix ans coalition buñ ñu mën a taxawal ci réew mi ñaari nit ñetti nit dem yor seen feuille ak seen bic génne FDS ci diaspora génne FDS dans tous les départements du Sénégal génne FDS au niveau de la liste nationale génne leen comme suppléant comme suppléant c'est ni kenn du ko fi waxee nag ah jooju doole nag ku ko mën a teg docteur Babacar Diop nag yàlla yàlla yàlla yàlla mm. mm. yàlla bindagu ko yàlla bindagu ko yàlla bindagu ko ca yaakaar naan yàlla du ko bind mais li ma jaaxal mooy leaderu FDS dafa amul constance ndax JDS la woon ci partie socialiste nga mer génn ànd ak Idi 2019 meraat génn dugg yeewi mer génn looloo ma jaaxal c'est sama différence ak yow xam nga mooy lan man topp ma ay nit man projet lay topp JDS projet la ba ñu nekk parti socialiste projet la Idrissa projet moo ñu boole woon keneen ku ñu nekk xam nga sëñ Cheikh Ahmed Tidiane daf daan wax naan topp diw bàyyi diw moo war a jeex ci réew mi man topp ma diw bàyyi diw projet lay topp ba ñu nekkee lycée El Hadji Malick Sy ba léegi projet boobu di xeex ngir dëgg ngir njub ngir fexe suñu réew mi moom boppam suñu réew mi am am souveraineté mën a yilif suñu bopp li mag ngi doon wax naa moom sa réew bokk sa réew projet boobu ci la FDS les Guelwaar daal di nekk moo tax ñun topp ñu diw bàyyi ñu diw ndaxte yàlla def na fii ci politique kenn ku ci am mbootu moo mën a boote FDS les Guelwaar amu ci mais kon lu tax ngay dugg ci grand ensemble yi bu fekkee ne ànd bi du am mucc kon pourquoi ngay rejoindre ensemble yi non je pense que Ndeye Fatou da ngay poser ces questions par provocation. non loin de là. non da ngay poser ces questions par provocation. <laughs> kon Fatou Je ñu. rek tontu. mais vraiment euh, docteur Babacar sur le plan national ak euh, loi bi nga euh, prôné pour que jëm ci élection présidentielle bu ñu gisee ne li ci li tax nga gën a élection locale yi ñu Babacar Diop pèse lourd FDS les Guelwaar pèse lourd C'est laaj ko waa rek c'est mais sur le plan national. parce que ton président aussi tam du ce localité que Sénégal lépp Fatima en politique tout est processus. tout est processus man kenn le jàngal politique dama mbappat jàng politique xam lan mooy politique xam fan lañu jëm aujourd'hui qu'on le veuille ou non au sein de Yewwi Askan Wi boobu ngay wax quatre formations politiques sérieuses qui ont woo ci FDS les Galawaar mënoo fa wax quatre leaders sérieux qui ont woo ci FDS les Le parti bo xamante ci quatre ans la toll parti bo xamante ni wi ñu gën lay dogo jot avec difficulté euh, oui mm-hmm. évidemment il y a plus de 300 récipicés au Sénégal récépissé une ñu ci ay poches di ko marchander négocier nous nous voulons construire un parti politique pas un récépissé Fatima je veux construire la première force politique du Sénégal. mais construire la première force politique. au Sénégal parce que yaa ngi koy wax léegi yeewi du débat bi débat bi mooy yéene bi nga am ci Sénégal mais on que yéene boobu nga amoon ci Thiès bi ngay euh, yootu euh, mairie bi euh, ni nga daan waxee ku ko day yaakaar ni boo ñëwee lu mu gaaw gaaw da ngay lijjanti problème mu mairie ba mais on voit que rien n'a changé ci boobule ville est ce que loolu itam mën nga ñu ko expliquer. yow de bu la waa Thiès déggee. ah Thiès dama fay dem de. dinañ noppi dinañ dindi sa micro bi. ay mbokk. Hmm? Hmm. yow de xamoo xew Thiès kon wala gëj nga Thiès. waa Thiès a ngi lay seetaan de boo taxawee cees nga ni docteur Babacar Diop bi mu fi ñëwee léegi defu fi dara yaakaar naa ni waa Thiès ci boppam ñoo lay tontu donc euh, ñu ngi jéem lu bari Thiès waa Thiès ñu ngi may seetaan am nañ sumb yu bëree bari yoo xamante bi ci ëpp doole bi ci ëpp doole mooy fexe Cees xam lan mooy seen alal nga sàmmal leen ko nga aaral leen ko nga wax waa Cees ni lii yéen a ko moom te waa Cees musuñu ko woon a xam dañ leen ko doon nëbb xeex yi ma am ay Sonatel la fu mujj def nga fi conférence de presse génn fi wax xaalis bu bari wax njuuj njaaj ñenn ñi xaw a négatif peut-être jàppee ko populisme ci koo xam ne mi ngi door a ñëw bëgg na li may wax rek coow li topp ko

aujourd'hui négociation yooyu ah, nañ ko commencé nañ kon li ma la wax ni dinañu renégocier contrat ak Sonatel lolou ñinga ci dinañu renégocier contrat ak CBAO ñinga ci amna ay marché fictif yu amone benn marché bi 19 millions la won banen bi à peu près 20 millions mais marché bi nga xamanteni ni cimetière yi marché fictif entrepreneur bi nga ñewon marché bi tay ji ma ngay tabaxat cimetière yi marché bi nga xamanteni ni mobilier la won entreprise ba wat na meuble bi amna benen marché bu bes nak bo xamanteni benen scandale la moo ba mbir lay dina ci ñewat ci entreprise bobu aussi fi ma jaar ak ñëli dina fa jaar ak ñom mais lolu amul solo xam nga lu am solo bi ma ñëwee légui lan lañuy def pour ties ñun biñu ñew dañu fekk dëkk bu lëndëm këriis nak bu lëndëm këriis ñu taal làmp yi tey jii ñi ngi ci ramadan bi boo demoon promenade des Thiès waa xale yaa ngi ci biti ma nga leer nañ am sécurité ñu taal làmp ci avenue yu bëri avenue Ousmane Ngom avenue Aynina Fall avenue Caen avenue Jean Collin Serigne Mourtada Mbacké Cheikh Oumar Foutiyou Tall docteur Dieye marché central ak ay quartiers mais yamuñu fofu dama def à dans l'histoire de la ville de Thiès 110 millions octroyé à ay formation pour xalé plus de 500 xalé dans 23 établissements ci cadre de vie et espaces yo jardins. jardin bilan de. def bilan bilan. Ah, <laughs> laaj ju la dañ ñun dañ laa laaj. plante baag foofu kon bu ma laaj ci waa li nga wax ci bu ma laaj ci waa Thiès kon. xam nga man damaa xëy ci Thiès. foofu lañ la moom damaa xëy ci Thiès mais yoon bi des na de ak a bëri ci mhm. Thiès. lu jëm ci euh, euh, mhm. Mhm. maanaam ñàkk set gi. l' sécurité également ci scooter yeeg lu bari ci biir Thiès. wax nga ko sànq école yi xam naa bu ñu bu ñu ci duggee amaan daf ñuy jëlal temps te euh, dañuy faaw faaw ñu baral. xam nga sama problème ak mooy yéen xam nga sama problème ak yéen da ngeen di wax ci ties ci xamu len ties da ngeen a waroon jël sen correspondant bi nek ties ngeen duggal ko. ma ne Babacar kon waaw baax na léegi nañu ñëw nak ci déclassification forêt ties bi ndax mu ngi do ci ngiro ci euh, souf soosu indi na problème maire yu bari yow lolu mba do ci ngiro man ties dama wax ak ñom ni deug rek lay dox ak ñom deug rek la leen di wax duma leen duma leen neub dara mburkaat am na coow lu bari ku bàyyi woon nga tarxiis na amul benn problème dama ni bari na coow te mën na am sax coow dina ci génnaat mais lépp lu may wax man dafay leer man du ma aw ma dara lu may nëbb li ma ciy gérer ville de Thiès di ko ci gérer aujourd'hui ba ñu defee affectation yi cent vingt parcelles la ñuy jox ville de Thiès xam nga du ma ko nëbb waaw mënoon naa toog fii di ko jiima nëbb su ma ko jiimee nëbb dafay mel ni dafa am lu ma ci nar li daan am Thiès jël ay parcelles jox diw xam nga ma sàmba diw man duma ko def. dama jàkkaarloo ak waa Thiès jàkkaarloo ak le bureau municipal. jàkkaarloo ak le conseil municipal ni 120 parcelles lañ jox loxo ci loxo ville de Thiès ville bi laa wax bi ma jiit. ci forêt bi yëpp forêt bi yëpp. ci forêt bi pour le moment 120 parcelles. 120 parcelles. loolu néewul. ah xam nga damay wax rek xam nga damay bañ di commencé dal Thiès maire mën na leen a jox ay terrain maire damay wax. bu fekkee cent vingt par cent xam nga mënoon naa ci bañ wax parce que wax ci sax daf may indil plus de problème mais xam nga transparence moom boo ko xisee ba dugg da nga koy ñeme da nga koy ñeme maintenant am na ay équipement yoo xamante ni ville da koy soxla mooy ay espace yoo xamante ni ay terrain de foot mais espace yoo xam ne zone économique locale yoo xam ne aussi demandé nañ ko ah ñu ngi xaar mais parcelle moom day faatu mmh. li ñu ci yor. yaa ngi koy jaay wala yaa ngi koy séddale wala man yàlla na ma yàlla musal man ma jaay parcelle waa Thiès yàlla na ma ci yàlla dimbali yàlla na ma yàlla sutural ba bu ma mus a jaay parcel waa Thiès ndey Fatou. Babacar bëggoon naa ñëw ci conseil des ministre oui je termine Jeanne après bëggoon naa ñëw ci conseil des ministres bi bi Amon Thiès nga participer ci bi nga le président de la république vous avez ko président. ko doon présider euh, quand même da euh, permettre le président de la république euh, de s'en prendre même à certains maires de l'opposition parce que souvent les maires de l'opposition ils di pas di accepter président de la république lan ngay tontu ci loolu Fat Abdou moi je suis un républicain j'aspire <laughs> être un républicain que je sache ci la république la ñu que je sache comment on est, ak on a naqari république boobu ñu à ce jour Macky Sall est président de la république que je sache Thiès ville mairie la man maire quoi de plus normal que le maire de Thiès dans le président de la république du Sénégal bu ñu demee ci Sénégal ba nit ñi mënatuñu waxante parce que opposition nga dans le pouvoir ce serait la catastrophe man politique pour man sa adversaire du non. adversaire sa adversaire warul nek ko xam da ngay jël paaka ray ko wala nga sul ko wala nga enterrer ko wala mu yéene la sax duggal la kasso politique projet la bokkuma projet ak président Macky Sall politique yéene la bokkuma yéene ak président Macky Sall mais bu suba bu président Macky Sall doon dellu si waat Thiès suba suba suba. dinaa dem accueillir ko dalal ko teral nga bokk ci défilé bi alors que wax nga ko naam gelé nga say activité ci biir yeewi mais ba tey yaa ngi ci biir yeewi askan wi. ñoom ñu bañ décliner cette invitation du président de la République le 4 avril yow nga dem fekkee ji défilé bi. man damaa def plus que défilé le contre-pied en fait. man li def raw na défilé. man rek yam ci de. dama défilé jox une subvention à l'armée ni len na fête bi rafet ñi dem après comme zone bi commandant zone bi doon joxé ay prix invité ma ci dem gouverneur bi doon def invité ma <laughs> euh, le euh, euh, <coughs> répondre à l'invitation du président de la République. condamné

incha allah dinaa ca dem dinaa fexe feet gi rafet feet gi jekk alors